li Macky Sall def Sénégal bis bu jàllee bis bu ñu xoolee ba mu jàll nañu leer ni tey jii nii su tubaab bi ñëwaatoon ne dañuy def jaam def ñu traite négrière jaaral ñu ci géej gi yóbbu ñu pour ñu liggéeyal leen nañu leer ni loolu moom bis bu ko tubaab yi bëggaatoon day am Macky Sall li mu def bis bu ñu bàyyee ba mu jàll nañu leer ni tey jii nii su tubaab bi ñëwaatoon ni dañuy coloniser jàpp ñu coloniser lu nu mel dafay am ndax dañuy toog di seetaan donc Macky Sall li nga xam ni def na ko bis bu ñu xoolee ba mu jàll nañu leer ni ñun la nga xam ni suñu maam yi liggéeyoon nañ ko ba dee doon ko bañ ba dee nañu xam ni ñun ñii nii duñu nuti dara nañu xam ni amuñu ngor nañu xam ni amuñu benn dignité nañu xam ni amuñu benn fulla nañu xam ni daanaka deretu góor du daw suñu yaram te nañu xam ni maanaam fulla bi ñuy jaay en tant que sénégalais fayda bi ñuy jaay en tant que sénégalais nañu xam ne loolu ci làmmiñ kese la yam du dara parce que li nag moom li nga xam ne Macky Sall da koo def du lenn lu dul saaga ndey képp kuy sénégalais lu lenn lu dul ni leen yéen Sénégal li ngeen xam ne xeex ngeen ko ay at ay ati ati ati at ma ñëw ni leen du tus du dara te lu ma neex laa ciy def te ku xam Sénégal xam ko ci réewu bañ ku xam Sénégal xam nañ temps colonie li mu doon métti métti yëpp amoon na ay résistants gox boo tudd Sénégal rek am na ñoo xam ne jëmmaloon nañ ko ngir xeex ngir bañ gàcce donc lii nii bis bu mu bàyyee ba Macky Sall jëmmal ko kon ñun mën nañoo xam ne ñun am nañ gàcce si suñu kanam maam yi nga xam ni maanaam bëgguñu gore rek moom moo taxoon ñuy xeex bëgguñu am dignité rek moom moo taxoon ñuy xeex bëgg ñu siggi ci suñu moroomi gor rek moom moo taxaw ñuy xeex ko bis bu ñu ko xoolee i sàll ba mu jàllale li nga xam ne moom lay jàll moom la xam ne ñun du ñu dara donc li nga xam ne moom lañ jëmal jëm jëmmal tey jii mais nañu jaral lu ne nanu jaral lu ne ngir ëllëgu Sénégal nanu jaral lu ne ngir avenir réew mi li nga xam ne moom lañuy jëmmal tey jii nii muy ci dimanche gi ñu door ko na na ko ñëpp def yitte ak foo manti nekk ci àdduna kenn amul excuse kenn amul excuse ku mën a daw nga daw pour dem ca rassemblement yi pour jëmbal ko ak noo ko mën a jëmmale ku mënul daw nga dox ngir agsi ci li ni mel ku munul dox nga raam ku mënul raam nga watatu donc kenn amul excuse ndax li moom yaakaar naa ne ku nekk daf ko war a def sa yitte ndax réew mi ci boppam la ñu nar a la ñu nar a salfaañe la ñu nar a jaay la ñu nar yàqate ba nga xam ne aveniru u Sénégal moom daanaka dañ koy effacé ci àdduna yaakaar naa ne ne képp koo xam ne am nga looy bañ képp koo xam ne deretu góor mi ngi daw sa yaram képp koo xam ne réew mi am na lu mu la jaral am na loo xam ne waroo ko waroo ko seetaan kenn waru koo seetaan ndax li ni mel yaakaar naa ne ñëpp bi ñu tëddee dem nelawuñu góor ñépp képp kuy gor sa maam yàgg laa xeexal ci réew mi billaahi wallaahi bi nga tëddee démb am nga lu la métti lool suñu maam yi nag suñu mosaan am lu leen métti dañ daan génn taxaw xeex ko dañ daan génn taxaw ñàkkante ko dañ daan génn taxaw dindi ko li nu mel nag ñun rek ñun ñoo ko mën a dindi kenn mënuñu koo dindal kenn du wàcc ci réew mi ngir dind lu nu mel ñun ñoo koy dindi ba mu set wet rawatina su fekkee maanaam ak bokkat da koo def

amul dara luñ ci laam-laamee amul dara loo xam ne yaakaar naa ne dañ ko ci yeexal nañ ko faj maanaam mbéjum kanam la nañ ko faj ci lu mu gën a gaawe mu xam ne séq ko ak ay tappet séq ko ak ñu ñàkk fayda séq ko ak ñoo xam ne ay lâche lañ wala ay minable yaakaar naa ne nag Sénégal lu mu métti métti nit ñi dese nañ lenn mooy ngor ngor ji moom yaakaar naa ne ku nekk sa digg ëttu kër yow yaa ngi koy bëgg a jëmmal donc jëmmal boobu nag tey jii la war a feeñ ci li nga xam ne moom la ñu Macky Sall bëgg a def mooy def ñu ay jàmm